waaw astaxfirullah moom yàgg naa di ko wax mooy benn médicament boo xam ni. Mhm. benn médicament la. Mhm. boo xamante ne nii c'est universel. ah bon waaw pour ñëpp. pour ñëpp lépp lay faj. am na ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko damaa bëgg doom mu ne ko xaleyka bi istixfaar damaa bëgg xam-xam mu ne ko xaleyka bi istixfaar damaa bëgg alal mu ne ko xaleyka bi istixfaar damaa bëgg yàlla jéggal ma samay bàkkaar mu ne ko xaleyka bi istixfaar fa xultu istagfiru rabbakum innahu kaana afaaran yursilu sama aleykum midraaran wa yumditkum bi amwaalin wa baniina waaye nag way jaxal lakum janaatan way jalakum anhaaran nga xamante ne day maye àjjana astaxfirullaa day tax nit dem àjjana astaxfirullaa day tax dex ya nekk àjjana nga mën ca mos dexi mm. sàngara yi dexi lem yi dexi meew yi dexi lépp lu fa nekk ci anhaar yooyu waaw xam nga alxuraan fi fi ne astaxfirullaa daa composé juróom benni turi yàlla yi ñoo ko composé mooy allahu ahad كافي فتاحو رزا هني سوكو كالكلي موي جاب 1947 الله 66 لا احد 13 لا كافي 111 لا رزا 308 لا فتاحو 489 هني 960 لي موي استغفر الله لغينا بو فلا نخي في ني من غي ديف كوم ني غا ديف 66 استغفر الله جانغ فخولتو استغفر ربكم انه كان غفارا با تي اي ني غا جانغ كو جوروم نياار يون ديلو ديف استغفر الله 13 jàng aaya bi juróom-ñaari yoon def astaghfirullah 111 jàng aaya bi juróom-ñaari yoon dégg nga astaghfirullah 308 jàng aaya bi juróom-ñaari yoon dem astaghfirullah 489 jaay jàng aaya bi juróom-ñaari yoon delluwaat def astaghfirullah 960 jàng aaya bi juróom-ñaari yoon uh-huh. boo paree di ko saxal di ko def insha allahu rabbi xaalis dana la yomb njaboot dana la yomb te sunu borom dana lay jéggal say bàkkaar ci ci lépp ci ci kalimatul astaghfirullah ci lay doon uh-huh. nga ne li nga xamanteni ni astagfirullah mom amul lu melni mom ala kulli ali dede manam nit ki da tilim moy sabu bi nga xamanteni mom boko xasse ba am nangu la fete rek nangoo fete gi nak moy nangu de wax astagfirullah lu bari. Mhm. waye fi ne da bari ay lim fi ne astagfirullah xam nga khala rajulani ga ci la maida mhm. fi ne bo calculer aya bi ba fi aya bi 7788 lay japp moy ñent istighfar 7788 mhm. lim la ci istighfar boo xamante ni ku ko saxal ñeen fukki da nga ubbeeku 7788 ñaari 8 euh, ñaari 7 ak ñaari 8 boo ko boolee def ci astaghfirullah munoo fexe ba doo doo doo ubbeeku bu dee baatu maxfiratu mhm. calculer xam nga lu mu firi 1225 la jàpp 1225 moo jàpp euh, fiddatu multiplié par 7. 175 beaucoup multiplié par 7 moi japp 1225 1225 mo japp un kon leg kep ko yalla djegal rek may la waaw bu la nangou le sa wax bu bu taw yi wacce mhm. waaw. Mhm. motax motax motax motax motax wax ni muy muy muy muy am Mm-hmm. waaw léegi nag yàlla nag doon na wax yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko te sax ni ko yàlla waxee ci alxuraan sax fi'lu amrin la daf ñu koo digal waaw fi'lu amrin istaghfiru la jéggalu leen léegi nag wax na ko yonent bi ni ko ñii ngay gis nii jullit yi duma leen mbugal mukk li feeg ñi ngi wax astaghfirullah mm-hmm. li feeg yaa ngi ci seen biir mm-hmm. duma leen mbugal waaye boo fi jógee duma leen mbugal mukk lu feek ñi ngi ñi ngi ñi ngi sax ci di wax la waaw kon nag kon jaam bi euh, baax na ci muy tuub. wala est-ce que lim yi comme ni nga ko waxee parce que lim yi dafa am solo. Mhm. est-ce que lim yi lu waay def baax na wala fokk mu dem mu mu tolloog adat yi nga wax. de waa maanaam fi ne nii nit ki mën naa jël istixfaar. wala da ngay di dem rek. déedéet déedéet mbëkk mbëkk di dem na waaye de xam fi nga jëm it da cee am solo. Mm. maanaam mooy astaxfirullah nga jëlal ko ay lim bu neexee ngay def 308 astaxfirullah mu jàpp razaax nga ci nga ci nga ci sax waa bu la neexee nga jël ko 66 bu la neexee nga jël ko bu la neexee nga jël ko 21 111 yooyu yëpp dafa dafa dafa am solo te laa nit ki war na saa suy demee ba desul dara lu dul tëdd donte téeméeri yoon la mu jéggulu ko borom waaw surtout waaw surtout donte téeméeri yoon la bala ngaa tëdd man ndax booy booy tëdd di nga jël sa temps lal sa lal. Mhm. xeeñal cuuraay. Mhm. tal te astafurla yeexul. waaw waaye nag nit ñi di moytu di wax astafirulaa astafirulaa mooy maa ngi daw yàlla. Mhm. waaye astafirulaa mooy maa ngi jégalu yàlla. xaas bi waaw xam nga prononciation bi. waaye ñu bari nag astafirulaa astafirulaa kii daw yàlla moom day da koy daw rek. <laughs> koy gën a sori waaye di jégalu yàlla di ko di ko.